sax euh, ñoom la ñu am ñi war a àtt tey Ousmane Sonko te bokk ci commission ad hoc googule yéen cabinet la jur coow la bokk nañ ci plainte contre x alaxam ñu bari ci kujje politique bi na seen xel dalul ci x googe ndax dafa rax ci dossier bi euh, bu ñu sukkandikoo ci soxna ay Aïda Mbodj Adji Mbergane Kanouté tamit doon député fare ci euh, mouvance présidentielle jàpp ne amul benn député bu gedd ci googu lépp ndaje dañoo bàyyi ba cappaandaw ga ñoom opposition bi doog du moyu salba Walf euh, Quotidien 24 heures 24 heures ne ala xam googee sax euh, yëngal na république bi euh, bu ñu sukkandikoo ci la fa xew démb ci commission ak dox ma ñu doon jëmmal jëm ci war a saytu maanaam mbalaanu kirlaay Ousmane Sonko ndax dañ koy muréem déet gannaaw coow li amoon ci suite beauté googu de salon de massage yenn cabinet député yi fare ci opposition bi ñoom dañ leen a xañ kaddu ci assemblée nationale bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne mooy soxna Aïda Mbodj opposition boobu sax Ah, gis ne donc document ya ñuy amoon ak li xew ak la ñu tënk ci dossier Ousmane Sonko daam lu ci rax muy ex goge ah, Moustapha Niass moom lañ ca joxoñ baaraamu tuuma ne dafa jalgati article 74 75 ah, bu tënk assemblée nationale seen ñaxtu ñoom opposition bi ci vingt 24 heures. turbine turbine kurpen donga desoon ci assemblée nationale ndax lu ne am na fa démb dagga santek te sante xas sante am na ci député yi fare ci pujjeg politique beeg euh, nguur gi euh, jàmmarloo gu tar dox seen diggante ni ki démb ci assemblée nationale député Aïda Mbodj wax na ci ne am na ci loo xamante ne ci dossier Ousmane Sonko gane si na ko bees euh, di x contre x plainte contre x x googe nag ba tax na xaaruñu ko woon ndax bokkutoon ci ndorteel dossier bi majorité bi moom ñu ngi dalal xelu askan wi ci la xew démb ci assemblée nationale yéen cabinet armée ru ñing moom dafa mujjee ñu yóbbu ko ci hôpital malaise démb foofee ca pencum ndaw réew mi lii quotidien dafa xew démb euh, muri mbalaanu ku kirlaay Ousmane Sonko euh, tàmbale na jur coow ay député jàkkaarloo ko équation x maanaam x ba daal moo leen jaaxal ala xam googe euh, nan nañu mun a def ba mun ko fa jëlee ndax dafa jékki-jékki daal ñu raxal ko ci dossier Ousmane Sonko te xaaruñu ko won ay dambo ñu moo ni ci di quotidien les échos les échos ne bokk na ci assemblée nationale jëm ci mbirum Ousmane Sonko ko xañ ko mbalaanu kirlaayam euh, dañ ko amal niki euh, semaine gi ñu jëm yéene kaa bi jox kàddu Moustapha mi xam ne ne amul benn x bi ci dossier Ousmane Sonko dossier googe ñaara ca am prénom ak nom euh, te kañ ca tudd mooy Ousmane Sonko njiital Pastef bu buñ sukkandikoo ci Les Échos le quotidien le quotidien Seydina Omar Ba ma nga ci assemblée nationale bokk na ci tamit lu waaju ci commission ad hoc BAC nañ ko tàmbalee doxale Cheikh Bamba dey euh, jot naa fipp euh, jàpp ne x googe dafa dem dafa ñëw ci lu kenn yëgut euh, ci dossier Ousmane Sonko bëgg ko xajamal bëgg ko tegal ndëgg sarax ngir mun a sànq njiital Pastef bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Bamba Dièye opposition bi faf dañoo sax du mooyu ndaje googe ci assemblée nationale ndax seen xel dalatu ca ñaareel bi mooy dañ leen a xañ seen kàddu te ay député lañu ñu ca pencum ndaw réew ma laas ci xëtam bu njëkk ñi sooke wala boog ñi sàkku ku ñu yee fitna ci mim réew jàmmarloog nguur gi yéen a cabinet dig ma ngi leen ci gëstu jot nañ caa teg loxo ab en enseignant la maanaam Alioune Badara Dia lay wuyoo yéen cabinet nag eh, soxna eh, kii di Birame eh, Souley Diop soxnaam maanaam nga xamante ne jot nañ ko teg loxo boobu léegi bokk na ci tamit ñañu gëstu mooy ñu jotatu mal tuumaal maître Dior ci dossier Ousmane Sonko. Libération Libération ne sax dig boobu sax xuus na ba ca Sonatel am na kuñ ca teg loxo Mbawar Dia lay wuyoo liggéeykat la ci googu lépp kër. moom la ñu njort ne moo joxe piste yi nga xamante ne fa a jaar ba mun a euh, itamit tànkaafu wala ba xoqatal wala bëgg a faat faat bakkan ñenn ci ñi ne ci euh, nguur gi yéen cabinet Fatima Traoré may nañ ko Afia euh, Fatima Mbeng moom la ñu desandi moom la ñu teg loxo ma nga garde à vue ana lu waral Alioune Badara Dia bu Pastef ca Saint-Louis ñu teg ko loxo indi ko fii ci Ndakaaru Libération ne lu bari mu ngi tàmbale subleeku ci dossier Ousmane Sonko la subleeku ci ci laaj ak tontu gi dox ci diggante ñañu tudd ci mbirum Sweet Beauté diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr cabinet jot nañ ca déglu ñu bari bari Adji Sarr ak euh, Ousmane Sonko bokk na ci déclaration goo xamante ne masseuse yenn ca Sweet Beauté wax nañ ko euh, sangu gañu ne am na fa Ousmane Sonko sangu na ko fa sarbet gañ ko jottali euh, ba ca pilule yàgg leneen ak leneen yenn cabinet l'observateur dikkaat na ci Sidi Ahmed Mbaye avocat beeg certificat médical bi l'observateur bi ñu ko yëggee Vox Populi yëgsi na ci Ndakaaru yéene cabinet ay BD demb lañ ko wàccee di ñàkk yi nga xamante moom la ñu jagleel xeex coronavirus njiitu réew Macky Sall ma ngi cay dalal xelu askanu Sénégal nañ ci am xel mu dal ne du am laam laam xaj ak seen ci vaccin yooyu le lu wér la goo xamante ne buñ ca saytoo buñ ca duggee rek mun nañoo xeex coronavirus yéene gi moom euh, fileeg ay fan ñu am lu ëpp euh, juróom benn million ci vaccin le ay kàddoom ci Vox Populi. critique critique ne njiitu réew Macky dalal na xelu askan wi. ci vaccin yi jëm ci xeexum coronavirus yemook nag Covid 19 gën di jur loraange ci mim réew ndax jege nañu lu toll ci ñetti téeméeri doomi aadama yu ko am bees di Covid 19 ci diirug benn fan vaccin googu nag ana lu waral mu yéex a yéeg Ndakaaru mu ngi ci critique le soleil njiit réew Macky Sall mel ni ku teg loxoom ci vaccin ya bokk na ci jot na leen a dalal démb ci ay BD lu tollu ci ñaari téeméeri junni ci vaccin yoo xamante ne yéeg si nañu njiit réew Macky Sall ne dootul yàgg ñu am lu weesu euh, juróom benn euh, million ci ay vaccin euh, bokk na ci tamit fi rek ay semaine fi rek ay bés daañu itamit amal campagne gu yatu ngir ñëpp mun a ñakku ngir xeex corona virus. direct news direct news xëy delloo njukkal Kumba Gawlo Seck mi ñu ne kàngam la ci wàllu musique borom baat bu neex bi waaye nag ay fan a ngi ni mu am jafe-jafe ci wàllu baat yéen cabinet Kumba dellu soit ak doole ci musique bi ak wér bi yaram gu sax dàkk baat ba jolliwaat Euh, doon lu yitteel direct news mu ngi xam ne Kumba Gawlo Seck borom pata pata am na ci ay disque d'or yu bari ci musique euh, sénégalaise bi sigil na musique bi ci Sénégal ak bitim réew euh, jot na taxaw sax askanu ay itti yéen kabi direct news moo ñu ko yëggee réew mi. lu doy waar am ca réewum Arabie Saoudite ab sénégalais moom lañ ca joxoñ mu tuuma ne dafa doon siif ab. xale bu jigéen bu toll ci fukki at ak euh, benn euh, man ko doon sàkku nag ci dirub ñaari at bu fee ci Arabie Saoudite yéen a bi di réew mi quotidien moo ñu ko yëggee suñu lamb euh, suñu lamb xëy di laajte ndax Boy Niang 2 day fekki géant du Baol maanaam Tapha ci dóorante ndax bu ñu fàttalikoo Tapha Tine ak fa mu jaar ak Elton fa mu jaar ak Bombardier ndax noonee fa lay jaar ak Boy Niang 2 am déet point d'interrogation bangook laaj la gu samp ci suñu lamb tënk la woon ci xëtu yéen a kaay incha dañ ci dikkat na mu gën a yaatoo Seydina Omar di la sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu la ci lay yëkkate jotaayu xibaar yi ñu ngi sant di gërëm bu baax a baax Adama Ndiaye mi fare woon ci xarale gi ci kaddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba jëlaat kaddu gi delluwaat ko soxna bisu ci am daaf su ko defee mu wéeg yéen di des ci seen émission bi di douceur matinale jërë ngeen jëf